fii ci Sénégal mën naa ni sax dans le monde kenn dootu ko présenté ndax nag ku ñu ràññee la ci wàllu wi muy yëngu rawatina nag ci wàllum seet ah, ci wàllum seet macha allah mu mën ko lool marqué nag empreinte am bu baax a baax euh, kii ñu seet si tey moom mooy Selbé Ndom Selbé Ndom taalibe Serigne Touba xaritu euh, Tidiane yi ah, moom kër kilifa diine boo dugg rek seen xarit la tarkal la macha allah njaaxanaay la tëddee ndey ji seex la. sama yaay ma nuyu la bu baax ziar la kontaan euh, feggoog yow émission bi. Mm, waaw di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Mhm. di sant yàlla rek. sant boo xam ne am na commencement mais amul fin. Mhm. moom mi nga xam ne moom ma may may xoole di wax mhm. yëkkati samay loxo di ko sant moom yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sangu-sang yi bàyyi Fatima toog Zeyna bokk Ruqaya ak Umu Kalsum sallallahu alayhi wa di ziyaare Serigne Touba Xaadimu Rasuul naa ko mbàkke mm. maa ngi yeesal sama njébbal ci moom naa ko mbàkke aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar mm. duñu ma sa fàtte nag sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Muntaxa Mbàkke Xaadimu Rasuul mm. ñu koy ziar moom nga xam ne àdduna bi moo fa toogal Serigne Touba doon fi Cheikhul Khadim di ko ñaanal mu yàgg fi lool Mbàkke yàgg fi Mbàkke yàgg fi lool Mbàkke bàll te ànd bu wér doomu aadama bu nekk nag am nga xarit. Mm-hmm. am nga wóllëre. Mm-hmm. am nga ko bëggal sa bopp. muy Serigne Moustapha Sy. Sy Malick maa ngi lay ziyaare. Mm-hmm. Sy Malick di la ñaanal gudd fan wu ànd ak wér. Serigne Moustapha Sy man maa ngi ko tuddee as siddiq ndax ma ñeme dëggam wax ko tu dëgg. macha allah na àdduna bi xam ne li nga xam ne moom laa bëggee sëñ Moustapha Sy. yaa rasulallahi boobu muy wax. mooy jóge ci dënnam bi di ñëw ci sama pas macha allah ndax euh, sëñ Moustapha Sy wàlli yu la. Mm-hmm. kuy bëgg ku baax war a bëgg sëñ Moustapha Sy euh, di sant yàlla rek. Mm-hmm. di nuyu waa Feeling Dakar. kontaan ci sa teewaay. Mm-hmm. yaay boy bii moom ndekete sama mbokkum yaay faal la dama doon gis te musóoru rek <laughs> ah, xale bu yaru bu baax bijou aussi la même chose mhm. Feeling Dakar Feeling Dakar àdduna bi la di ci profito rek du nuyu waa àdduna bi yëpp su ma mhm. limee damay juum ndax xam naa ne ñëpp dañuy bàyyi xel Feeling Dakar ndax du site bu ndaw site bu mag la macha allah mi ngi noonu euh, tey suñu yaay la ñu dalal Selbé Ndom mais nag yaay ñu fekk la euh, ci ci ci ci waañ bi nga ngay togg mu mel ni nag li li nga doon wax euh, firnde firnde la. mooy que ni Selbé bu la toggalee rek nga xam ne togg na. suppu kànja laay laay def noonu. Ah. suppu kànja waaw. am na yoxos. Mm. am na crevette. am na paañ. ñaw yéet bu sew. <laughs> tout. confirmé lépp lépp man togg rek laa man vraiment rek laa man mhm. dama la waxoon sax pour nga ñëw mhm. di ma jëlaale may togg mhm. sénégalais xam fi nga mëne non sénégalais xam ne Selbé man togg ma sama profession wallahi xalaatuma woon ne dinaa toog di seet wala may toog di wax nit ñi di ma dégg sóoraale ma ko woon mais sunu borom bu la séddee dara ok rek ngay wax. foofu sax laay ñëwee suñu borom bu la séddee dara. ok rek ngay wax. Euh, euh, mu doon euh, baat boo xamante ni lu am solo la. waaye nag nga wax léegi lu lu doy waar togg moo nekkoon sa profession. Selbé nga toog ci sa benn entretien wax que ni fépp nga mëne lépp nga mën létt sax da nga koy def mu mu doon loo xamante ni amaana lu bees la ci ci sénégalais yi parce que ku xam Selbé ci seet nga ko xame lan moo waral métier yooyu yëpp nekk fii Selbé taamu seet. ma njëkkee leen wala wala seetal la taamu. voilà ma njëkkee leen muy lan. ñi nga xam ne dañu bëgg a defar perruque te amuñu bopp. Mhm. siwo yi nañ ko dëpp. buñ ko dëppee kii ci euh, li ngay li ñuy sol. mbaxana bi waaw. waaw buñ ko ci defee mën nañ ci ñëw perruque siwo yi. soo yi. bien sûr am na ñoo xam ne amuñu ay tet. waaw léegi soo amul tet siwo mu tàddi yi. mu nga ko jël dëpp ko kon jëndi jëndi tet. non man sama doom bi ma koy périg yi ma koy ñëwal yëpp fii laay ñëw suñu borom moo ma def dama judd rek sob macha allah sama bopp bii. Uh-huh. lii lu ci nekk rek maa ko defal sama bopp. macha kenn ma takkal maa takkal sama bopp. Hmm? suñu borom defal na ma loolu. damaa juddu sob damay létt. renversé dama koy létt mhm. petite tête su ma la ko tegalee danga naan meer du nit suñu ah, borom may na ma xel boo xam ne wax dëgg yàlla suuraw moo ndax sax seet macha allah donc lan moo la dugal ci seet suñu borom hmm. du lu ma jàngi dama tëdd ba guddi ñu jox ma pettaaw nii hmm. ñaari loxo su ma jëndee pettaaw di ci foo ñu ne baaxul ma jël pettaaw yi dugal ci duus ah yenn saa dama naan bàyyi naa pettaaw dama jël pettaaw barke Seydina Mohamed lëbës ko ba mu ba mu ba mu dëgër. Mhm. sànni ko sama kow armoire. mais suba damay dem àjjiwaat ko day mel jëlal jëlal jëlal hmm. juddu fekk su may maam am xam-xam. d'accord bokk ci famille séeréer famille wàlliyu hmm. dama jaxase daal. macha su ma neexee ma nekk ceddoo. Mhm. su ma neexee. yenn saa yi nga gis mère rafet yenn saa yi nga gis mère ñaaw yenn saa yi taxaw yenn saa nga gis mère màgget loolu mhm. suñu borom la mbirum suñu borom la mais nekkul ne man maa choisir seet d'accord kon kon kon daal mu mel nii seet moo la choisir kon suñu déggee wax ji euh, mais mais mais nag euh, comme danga ko booleek leneen wala wala seet rek la Selbé Ndom di def waaw xam nga lu jot rek yomb mm. ginnaaw samay maam ci jur sama yaay mhm. man Mañaaw Sylla sama maam te ku xam Mañaaw Sylla xam ne sëñ Mañaaw Sylla uh-huh. moo jur Lamine Sylla Lamine Sylla moo jur Mor Sylla bi jur sama waajur wu jigéen ma bokk ci famille xam-xam uh-huh. mais loolu dama koy jël def ko uh-huh. ne sama yaay yaayam ci famille bu marabu mag la bokk loolu yëpp teg ku mais damay delloo sama bopp ci yàlla mi nga xam ne moo mokk moom moo ko def ci man ma judduwaale ko. Hmm. mën a gis loo xam ne ñëwagut di ko wax. macha kon suñu borom laa koy sant c'est pas parce que dama bokk ci famille bu wàll yu rek. Hmm. war naa mën a xam dara. Hmm. am na ñoo xam ne am bokk nañ ci famille wàll yi te mënuñoo gis luy ñëw suba. dëgg la kon loolu man dama koy sant yàlla julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant ko cheikhul xaddim mi nga xam ne mooy sama wasila macha allah mhm. euh, mi ngi noonu euh, mais nag euh, Selbé ñu ñu dugg ci ci ci ci Selbé Ndom Selbé mi mi Sénégalais yi xam Selbé mi nga xam ne moom la ñëpp xam mu mu muy seet kat dañoo toog nga dégg la nga ne seet amul génne tur petaaw yi nan la ci nit mën a mën a mën a génne tur nga teg ko nag fu wóor fu leer Euh, lan moo waral wax jooju. mun ci pettaaw laa jënd kër gi ma nekk nii. yow bien sûr kër gi nga toog nii. pettaaw hmm. ko jënd. macha allah. kenn mayuma te mosoo cee gis tur. dégg amul tur maa la ko wax amul buñ tegee kaamil ma jóg ci teg ci samay loxo fii ba Màkka. jaral na la ko. billaahi. mais mais mais mais Selbé nag amul euh, amul hmm. xam nga dóori mu ëpp. Hmm. dóori baaxul gis man. su ma neexoon damay dóor. Hmm. su ma neexoon damay dóor. mais am na ñu la boole ci dóorkat yi de est-ce que xam nga loolu. noo man du ma dóor. Hmm. gars xam nañ ko sax xam nañ ne man dama naqari deret. mais am na ci ñoo xam ne dañ dañoo boole Selbé Ndom ci dóorkat yi. ne Selbé day dóor. non non non man su ma doon dóor. Hmm. ay su ma doon dóor ba tey maa ngi yore micro di Sambay Mbayaane non sant. John John may sa waali John nay sa maam. ah kon da nga bëgg a wax ñii sàmm mbayaat dañuy dóor may ah dóor la ay ah. dóor la bien sûr mais mais am na ci ñoo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoom it dañoo dóor ba ba yor seeni kër xam nga ñi nga xam ne maanaam ñooy ñee ñooy hmm. ñooñu dóoruñu géwél yi hmm. dóoruñu hmm. dañuy def seen cosaanu maam d'accord dañoo gëm seen bopp mooy tëgg dawul mbaar ñooñu mën nañu wax ne ñoom am nañ droit boobu. Hmm. ndax dañoo fekk seeni maam di ko def ñu donn ko. d'accord di leen ziar. mais ñeneen ñi ci ndax tey jii su ma amoon xew. Hmm. waaye bëgg naa sama géwél ñëw fii tàggal ma samay maam. macha allah ndoom séeréer ndoom de cokoyaan. Hmm. borom mbuuféer. daf may neex. su ma amee mu koy jox. te taxul ma yab ko. d'accord respecté naa ko. fu géwél duggul neexul. Hmm. fu ñeeño duggul neexul. macha allah ndax balaa ngaa takk or. Hmm. waaw nga seeti ñeeñ ñi. ndeysaan dëgg fonk naa leen di leen bëggee bu baax. mais bëgg xaalis. Hmm. man jarul ma leen li non. d'accord pour gàttal wax ji. billaahi wallaahi wa petaaw. amul tur. mais mais mais est-ce que tamit Selbé nañ nañ nañ nañ ñu waxtaan rek euh, lépp dañ koy waxtaanee est-ce que du tamit ñooñu seen mën a seet moo yegg ci ñuy génne. non kër goo am am na ndey. kër gu ne am na ndey wala mu am Fatou wala mu am Soxna wala mu am Ibrahima. wala mu ah, am Mohamed da da nga jàpp foofu lañ koy natt. oh xool man du may waxantu yàlla dafa may xam-xam man yàlla dafa may xam-xam yoruma béjjën yoruma laa je suis né naturel. d'accord dama xam koo xam ne dina gis na mën naa gis loo xam ne. football bii di ñëw gis naa ko ñaata moo ci des. Hmm. bi ma président ne ko tu seras le quatrième président de la république booba des na ñaari at ak ñeenti weer toog na deux ans quatre mois Macky Sall mi ngi dégg xanaa loo mën a wax wax. Hmm. xanaa di nga fi bàyyi <laughs> doo sosol président. d'accord kon. su luñ mm-hmm. la wax ci seet rek dëgg la man mën naa seet ci doomu olive. Mm-hmm. doomu olive. olive mën naa ci seet mën naa seet ci doomu gerte. gis nga bu. kon Selbé yamoo ci petaaw yi kese. bu yëf yi ñëwee dëgg dëgg damay xool nii di la wax. d'accord. sama yaay dafa ma waxoon tëjal ma sa gémmiñ gi samay mag yu góor nee ma sa gémmiñ gi. Hmm. balaa maa tëdd dañ may defal këriñ. nii fii fii lañuy def këriñ. pour lan. gis. pour nga bañ a gis. waaw. d'accord. man sëlëm nañ ma ba sonn. de woon papa xool lii papa papa xool lii sama papa man la gënoon a bëgg ci doom du mu mës man man bi ma juddoo dafa ne moom buggatul benn benn doom. Hmm. keneen ku topp ci man ku mu jur maye na la. ah. sama mag bu góor sama taawu yaay. Mm-hmm. Sika Bawo Baab la nekkoon sama kër nijaay. Hmm. sëriñ Ndom mi nga xam ne moo ci topp. Mm-hmm. nekk sama kër bàjjan Jurbel. Mm-hmm. Maretu doom mi nga xam ne moo topp ci man. nekk sama kër bàjjan Jurbel. Ah, Aliou Ndom. nekk daara. Mm-hmm. bas ndoom nekk daara. macha allah xuja mm, nekk sama ko tànt mm-hmm. lu sama yaay jur jeex. yow nga nekk ak moom. man kese la bàyyi ci kër gi. macha allah musul musuma nangoo joxe. Mm-hmm. c'est que bëgg ma sori sama waxu papa. parce que damay bañ. d' accord mm, nañ jàll si. non foofu foofu ñu xuus ci ndax nag mm. euh, euh, ku ne xam na ni jur dafa foor ci doom. Selbé Ndom du wax dara te tuddul papaam euh, euh, afinité boobu ci ci ci sa papa wax nga léegi li ko waral mooy que nii dafa dafa toog wax que ni yow yaa ko gënal ci doomam yi lan nga lan nga ñu mën a fàttali ci sa papa Selbé. moom moom may jom may ma fit. moom sa papa. Mm-hmm. moo tax ma nekk jàmbaar. parce que bi mu. oh. mérime mu war a def yëpp def na ko ci man nu ma mel rek moom la. Hmm. Hmm. nu ma may moo tax du ma génn di ñaani. judd hmm. naa ba mu am quatre vingt quatre ans xaw ma quatre musuma ma demal ci diw may ma dara musuma ko gis. ndeysaan musuma gis loolu. six jours la toog ci àddinaam yoo xam ne liggéeyut ci dama xam. Mm-hmm. mu gaañ. six jours. boobu yàlla woon na ma ko dama ne sama papa bu feebaree day day day dem. Hmm. ñu ne ma loolu wax ni mës naa ko wax ne ko papa sama bàjjan day dem mais bu sama bàjjan demee après yaa ciy topp mu ree mu ne ma loo wax dëgg la maa la jur xam naa la. sama hmm. bàjjan dafa gaañu même pas six mois moom mu gaañu. mais pas six mois moom mu gaañu ci feebar bu ndaw dama ko gént mardi uh-huh. wax ko sama dëkkandoo yi ne sama baaba bu feebaree dina dee mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ñu ma ne ma dafa feebar ma say oh. bi ma demee pour defal ko sarax la ma sama jinne yi ma àndal ne ma génn ci sa yoon nekki sa def mu nekk ma nii ne ci sa yoon nekk génn ci génn ci ba mu set ma xëy jënd sànqal mm-hmm. ak sunguf moom lañ ma wax pour ma jaxase ko mm-hmm. def fii araw ak sànqal boole ko togg ko sama papa fi mu tëdd la ma wax ne ma ee eh, bàyyil moom sa papa mu ne ma bàyyil man ma dem yow xale nga toogal te boobu xamul lu may def ma ne ko bàyyil dama la koy toggal mu ne ma déedéet boo ko toggee man duma ko lekk ndeysaan bàyyi rek man ma dem mu nekk papa joo xam ne daal mun ma wax ne mu mu ma gënal ci àddina ndax yàlla mi ma ko jox dama koy jiital yàlla. Hmm. dama ci teg yonent bi mais papa joo xam ne. Hmm. Hmm. am na jom am na fayda bu ngénte sax day liggéey. ndeysaan bu tuddee ba pare day dem liggéey. yore ñaari métier mosuñoo xiifloo mosuñoo marloo. te bëggul doomam sax di def naka sa dul noonu. xaalu doomam ci dépasse xaalu doomam ci dara. macha allah. Mm-hmm. moo tax ajal naa ko màkka. Mm. te su ma yàlla mayaate nga aussi dama koy gën a ajalaat. macha allah lu ma doyal ci moom jamais ah topp naa nag lu ma jur mënuma ko fay bi mu gaañoo fekk awma xaalis. Mm-hmm. mais euh, après euh, toog naa treize ans. Mm-hmm. may doog a am dara. mi ngi gaañu quatre vingt dix ci la gaañu octobre vingt-trois octobre quatre-vingt-dix-neuf ci la noppalu. Hmm. léegi ma commencé liggéey 2012. ndeysaan. léegi nag ci laa laaj te ñu wax ma fu mu nekk fuñ ko tëral ma wax sama mag bi dimbale ma woon ma bu ñu demee sama mag bi kii bi réer ko ndax Touba xam nga foofu. dafa hmm. fees léegi nag ci laa dama yàlla boole kenn koo xam ne fa la nekk mu woon ma ko. Hmm. ma dem ba gis sama eh, bàmmeelu papa. Mhm. dara teguñu kenn ci kawam. ndeysaan te ëpp na treize ans. laax ko bar ci laa dem tabaxaat ko bàmmeelam defaraat ko yëpp ba tey jii boo demee dafay gis na nga xam ne fii de sama waajur nekkoon. Mhm. ñu sant yàlla rek bu baax. macha allah ñu sant yàlla bu baax mais mais mais dañ dañ ci dañ ciy xuus tuuti rek. Mm. Euh, Selbé nga toog euh, ay at. mu leer la ni sa sa sa waajur bu góor dëddu nag xamuloo fan la tëdd première fois nga njëkk fa dem. Mhm. mu leer la ni sa sa sa waajur bu góor fii la tëdd yëg-yëg bi lan la woon. nañ ko dundandoo rek non bi sant sant la sant sant rek lay doon parce que koo xam ne ba muy noppalu yaroo dara. ndeysaan. mais newoon naa leen tabaxal leen ko léegi ñu def tabaxuñ ko noonu lañ ko bàyyi tableau rek lañ ci def. Mhm. ma laaj leen ndax tabax ngeen ko ñu ne ñu ne déedéet sama xol tàng. ndeysaan te booba yoroo loo ko tabaxee. ma di ko bàyyi xel rek di ko bàyyi xel 99 ba 2012. ndeysaan ay at yu bari la mais lépp mi woon sama biir xol ma téye ko rek. Mm-hmm. sant naa yàlla nag bi ma yàlla maye as ba ma mën a dem fekk sama waajur wu góor fi tëdd ma defar ko fekk sama waajur wu jigéen fi mu tëdd ma defar ko. macha allah. sant yàlla sant yàlla bu baax.